waay tubaab ba waay am na lu mu yor joxoñ ko ci ñeent xibla yi ndaysaan doog a taxaw promoteur ba bi pato de man xaw ma nooy tëggee ba pare ñëw dend moom di ko conseiller ànd ak moom di wax ak moom man daal lii jaaxal na ma. tubaab bi def na lu maamam deful. wallaay def na lu maamam deful. def na lu baayam deful. loolu baayam deful. tubaab bi tubaab bi dafa mel ni pare na. waaw ah, pare na boos. tubaab bi kay fi dolli wane na boppam wallaay wax nga dëgg. def na ci taarix loo xamante ni maamam defu ko baayam defu ko. mu fas yéene ñëw fii Sénégal ngémb. bëre. cey làmb làmb ngi de. tubaab bi ñoo ngi di daal ñetti butéel yi règlement bi wax Adama. tubaab bi moom respecté na ko moom. teel naa jël ñetti butéelam teg. di xaar bis bu rafet. waaye adversaire baa nga noonu yéen a ngi koy gis. ndaysaan muy Pape Diouf muy ndaanaan ci làmb. ndaysaan Pape Diouf a ngi noonu. ndeysaan cey làmb Adama Adama xaaral ma dem foto tubaab ba signalé na arbitre bi sifflé na Pape Diouf ak bi poto numéro 2 Pape Diouf moo la féetee càmmoñ bi poto mooy tubaab bi moo xees Ndeysaan cokkaas na Pape Diouf Big Pato Pape Diouf Big Pato Pape Diouf Big Pato Ndeysaan Pape mooy bul ko dóor fexeel jàpp ko ndax mun gaa dóor jël kuwam Pape Diouf Big Pato Pape Diouf Big Pato jàpp na ko Pape Diouf jàpp na Big Pato Pape Diouf sol na ko lu mu nar Big Pato bañ na Pape Diouf Big Pato Big Pato bañ na Pape Diouf daw na jël ko ma ngi buux doon na koy perkit laa laa ay Pape Diouf mi kafu de tubaab bi doon na ko tubaab bi doon na Pape Diouf daan na ko Pape daan na Big Pato numéro 2 Pape Diouf daan na ko Pape Diouf jëli na ko daan ko Pape Diouf daan na Big Pato Pape Diouf daan na ko Pape Diouf daan na Big Pato Adama Pape Diouf daan na Big Pato to share the ring with him. nee a bi ngeen jaaxaarloo seen jaaxaarloo bi. Mhm. dafa kontaan si jaaxaarloo bi signature bi nu mu demee. moo tax kontaan na pour mën a nekk fii ak yow pour xeex. dëgg la ne ko sant naa ko gërëm naa ko. naa ko bu mu next fight you win. your next fight you win. you don't you don't worry you don't worry. you don't worry dégg nga you don't worry. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ah, kontaan naa mais fii kontaan nañu vraiment parce que si ay te fii si ay te vraiment exemplaire. Mm. parce que ñun Sénégal pays de Seranga la. Mm. mënoon nga bëree woon neneen. Mm. mais da nga xam ne vraiment kii dafa ñëw nekk sa gan. nga bëree moom ci aar daan ko ci aar. vraiment félicitations parce que yow sa baay la. Mm. ñu xam bu baax mu Serigne Ndiaye. mais ñàkkuma bëri rek. Ah, man damay fay damay def. champion nga champion nga. billaahi ci ne ma wër sa ko déwén. ah yàlla da ko indi na. ay Lamine mi xam nañu bu baax man maa téléphone ci ci la. yow wax baaxul sax am na loo xam ne jarul wax sax parce que maanaam lamb moo moo doy benn instant benn coow face à face même dañuy mm-hmm. wax rek mooy ne sponsor yi ñëwaat jàppale lam mais bu leen ñam rek ci jàppale promoteur yi jàppale aussi presse en ligne bi parce ñoom it liggéey bi métti na dañuy déplacé wu loolu soxla li bëgg mooy taaral lamb indiwaat lamb culture boo xam ne ñëpp a ci gis seen te li ñaan yàlla mooy sénégalais bu fi ñëw euh, étranger di ñëw di bëre comme Pape Diouf di bëre moom ci aada ak cosaat daan ko jël boo xam ne ci lamb la ko daan te liñ bëggoon tey mooy moom moo xam ne fii ay am de valeur ñu fi ay am de ñu xam ne ñu xam ne ay nit teraanga lañ parce que tey Pape Diouf mënoon na ko gaañ mu ñaaw mais ni mu bëreeg moom daan ko ci technique man loolu moo ci gën a neex te li may wax mooy na booy bi na ko gars yi tëggal ay combat I just want to explain why we may exist why we exist day you know Senegal is Senegal is a country of, of culture of wrestler yeah. there is many uh, Senegalese which will be in Europe to fight but we invite here, you here yeah. to make the fight with Pape a very big champion his name uh, is Pape Diouf number number two yeah. and today you welcome in Senegal you see the Senegalese hospitality he was here for the winning the cup Africa and exactly many things about now we are very happy to tell you welcome to Senegal it's your first fight it's not a problem you want to come back next time to win yeah for wax rek mooy li ma ko doon wax di ko di ko ñaan mais nag benn affaire journée bi maa ko dijee Lions du Sénégal li ngeen ñu defal rëy na li jaajëf émission bi jaajëf jaajëf yàlla nañu yàlla may coupe du monde moo jeexul moo tax nga daanu mais garaawul <laughs> waaw waaw benn bi dina jeex amul problème bidel bee jeexul moo tax nga daanu